ñu ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm tey vidéo bu ñu leen andil tey mooy nan def ba récupérer sa mot de passe iCloud bu fekkee da nga fàtte mot de bi nan koy def ba mun ko modifier ba amaat accès si sa compte iCloud donc gars yi sa iCloud mot de passe boo ko pertaan ni nga ko mën a modifier bari na lool lool lool moo tax dañ leen ci indil ñaari système yoo xamante ni mën nga ko def pour nga récupérer sa mot de passe iCloud donc mu nekk lu am solo bi partie 1 bi la dina am partie 2 ba partie trois sa incha allah boo ñëwee ci paramètre bi après nga dugg fi si tur bi nekk nii nga dugg mot de sécurité léegi boo ñëwee fii modifier le mot de passe donc boo ñëwee dangay ngay dugal sa code bi obligatoire moom parce que boo dugal boo xamul code bi bii tamit doo mun a jàll fii donc boo ñëwee fii gis nga nouveau mot de passe ngay dugal voilà boo ko dugalee ci kaw nii ba pare après nga confirmer waat ko suuf nga def suivant donc mais bëgguma ko modifier fii nag moo tax donc foofu noonu boo ko defee modifier rek day modifier wu beneen méthode bi tamit mun nga ñëw ci application Apple bi ni mooy fi nga localiser sa iPhone bi donc boo dinañ ci defaat yeneen vidéo incha allah rek parce que méthode yi bari na lool boo ñëwee nga ñëw moi fi ni voilà donc après nga ñëw donc boo ñëwee fii dalay jéem a yóbbu sa iCloud mais bul bul connecté bul continuer da ngay cliquer ci suuf fii nii boo ñëwee da ngay dugal sa Apple ID bi mooy sa email bi bi nga xamante ni moo nekk si iCloud bi nga bëgg a récupérer mot bi moom ngay dugal fii nii voilà bu fekkee beneen nit la tamit donc dinañ ci defaat beneen vidéo parce que même méthode la mais am na différence tuuti voilà bu fekkee yaa bëgg a dimbali nit après nga continuer fii mu laaj la sa mot de bi mais yoruñu mot de bi dangay ñëw mot de passe oublié voilà boo ñëwee fii tamit dangay ngay dugalaat sa kii bi sa email bi voilà donc boo dugalee email ba pare ñu dugal email bi donc mu ngi nii pare ñu def continuer voilà fii nga xaar mu chargé tuuti léegi fii sa numéro téléphone la lay laaj mooy numéro bi nga ubbee compte iCloud bi voilà pour nga mun ko modifier voilà gis nga ko pare nga def continuer dinañ ñëw tamit ci yéen ñi nga xamante ni seen numéro téléphone ay cloud di dinañ ñu wan leen ban système ngeen def pour mën ko changer après nga def autoriser voilà après nga ñëw fii nii nga dugal sa code bi donc lépp mën a nekk fii fii nii boo ñëwee mot de bu bees ngay dugal gis nga moom mu ngi ni da ngay koy dugal ci kaw après nga confirmer ko ci suuf voilà boo ko bindee nii ci kaw parce que mu koy bind nag euh, kii bi du. caméra bi du ko jël après nga def suivant ci kaw gis nga ko votre mot de passe a été modifié donc euh, mu ngi noon gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné pour deuxième vidéo bi